Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. li ñuy faral di wax ci làmb combat jànk dafa am fu mu bëgg a dem ki nga xam ne Modou Modou Anta tendre ko la perse parce que mën nañu wax ne tey Modou Anta moo may chance Diène Kaïré ndax Modou moo ko jiitu si làmb Modou Anta ak Diène boo leen xoolee morphologiquement bu ñu liggéeyee ba taxaw. dara du leen wutale ci taxawaay dara du leen wutale ci dayoo dara du leen wutale ci doole waaye combat la bu nga xam ne Diène bëgg na ko Modou Anta bëgg na ko Gaston taxawal na ko dañuy bàyyi Modou Anta mi jóge Thiès mu ñëw wax d'abord moom mi doyen lu tax mu nangu jox Diène Diouf Kaïré chance ak combat bi lan la ko jaral bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi sante yàlla rek di julli ci yonent bi sant sumay ñaari waajur di sant suma sëriñ maam Saliou bu sëriñ Cheikh Ngounda Fall eh, di nuyu tamit ñu teew ci salle bi yëpp di nuyu sunu papa yi fi nekk ci mel ni père Mohamed Ali ak père xam nga di nuyu tamit sunu papa yi nekk ci yëpp ku ci mel ni père Mohamed Ali père Boy Kéré ak ñi nga xamante ni xam nga xaw ma seen tur quoi di bu baax a baax di nuyu tamit promoteur bi di nuyu sama adversaire Diène waaye. waaw d'abord. Hmm? Euh, am na yeneen adversaire yoo doon yootu mhm. nit ñi di xalaat yeneen combat ci yow nga jël Diène Diouf rek lu ko waral waaw mooy comme li ma waxoon sànq ci biti rek nee naa ko amul li la gënal am li fi sës comprendre nga man Diène bokkuloon suma bokkuloon ci sumay adversaire yoo xamante ne choisir woon naa pour su ma amee lu ma gënal pour bëre rek ñoom xam nga li ma expliqué am na ñu fi nekkoon amuñu woon combat laajoon naa leen mais yàlla dogal na suma combat ak taxawul eh, tey nag suma combat ak Diène moom moo taxaw kon xam nga dañuy sant yàlla baax di ñaan tamit xam nga suñu borom yóbbu ñu ci bis ak jaamu yàlla meñ dam incha allah rabi. combat bi ndax amul loo ci tiit ndax xam nga jéen bu baax a baax. non jéen xam naa ko nii rek comme ni ma ko xamee ci làmb rek wax dëgg yàlla muy bëri tamit ma di ko seetaan loolu rek laa xam ci moom mais xam naa tamit champion la daal e dama koy ñaanal wér rek xam nga di ko xamal ne tamit am na combat daal waaw na góorgóorlu bu baax a baax a baax. lu tax am na combat. non dama xam ne am na combat rek yàlla xam na ne am na combat parce que tamit xam waaw combat bëggoon na ko mais yàlla dogal na ko kon am na combat na jàpp ne tey moom mu ngi doog a am combat ci carrière am loolu moom dama koy teel moom mu def ko ci boppam bàyyi waxeel kon daal du yomb non du yomb yomb moom bum ko sax xalaat bilaay walaay talaay ah. mbër liggéeyal de yaag say te xam ne am nga combat nag waaw bu bis bu arbitre bi soufflé foo nekk naa la fet yàlla xam na loolu Pape Garam wala. non non. nga bëgg combat bi. mais yàlla mi koy soog a dogal yeneen adversaire la doon séntu yu dul yow. mais nag bii moom yow la ak moom. waaw dëgg la père xam nga avant tout ñoo ngi nuyu xam nga ñi ñi ñi nekk salle bi yëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay parce que fii mën naa ne suñu ay papa ak suñu ay maam ñoo fi nekk. di nuyu sama ñoom maam Mouhamed Ali sama papa. ak hmm? papa yi fi nekk yëpp. suñu papa Gaston. ñu kàddu gi nee nañ. suñu papa Gaston ñu ngi koy nuyu bu baax. parce que koo xam ne sa papa la daan jox avance comprendre ba léegi tey mu jox avance dañ koy sant yàlla di ko ñaanal mu dem bay dëgg suñu ay sët ñun ah. làmb incha allah loolu dañ koy ñaanal xam nga di ko ñaanal gudd fan wér gu yaram nuyu sama adversaire moo daan tamit xam nga di nuyu ñëpp site yi fi nekk yëpp ndax li yokkute làmb dafa làmb ay jamono benn télé nga gis ñaar léegi macha allah ñëpp ñëw na mooy wane ne sant yàlla sponsor yi daf lay ñoo jàpp si di ñaan yàlla feebar bi di ñaan fi corona bi jógee fi sama adversaire nag li mu wax dégg naa ko bu baax parce que boobu ba léegi mu ngi wax même avant combat bi gis naa ko benn site bu taxaw waat mais ne jën mënumaa daal waat ma koy xamal ne sa yàlla mi ñu tiim xam ne ne loolu mu def ci boppam day nax boppam yàlla xam ne day nax boppam du ci bëree du ci xeex du ci lenn lépp lu mu ci indi maa ko gën a xale maa ko gën a bëgg te combat bi cin buy baax la amul ëpp sedd man ak moom man ak moo daan waaw moo jox naa ko cër bu mais ci biir géew man ak moom yàlla ci yàlla yóbbu nee ngeen liggéey am nga combat ah, nee na yaa ngi soog am ah, bi laa jàpp de parce que catégorie bi dama fi yàgg rêve dugg waaw may bëreeg daan na ñoom ñëpp xam nga waaw yàlla def nag moom moo ma tijjil bunt bi dama ko ci sant di ko gërëm di examen la carrément voilà examen la de incha allah dama moo daan bii moo may tee affaire jëf du ñu ñëw maa ngi moom jëflante amul lenn lu may arrière pensé ci moom ah. respecté naa ko trop nag mais dama koy waxoon fu mu def ko ci boppam fu ko ne yaa mën jën mu ngi lay nax jërëjëf loolu de leer na combat bi neex na ba pare jóg leen joxante loxo fii ci kanamu caméraman yi combat baa nga waaw loolu la dama lay waaw damay xool fu ma lay jaar fu ma lay jaar laay xool fu ma lay jaar laay xool